ba ba man Babacar xam naa ne maa tax ba man Babacar xam naa ne maa war a raw mbooleem ku lay sant ngir yow rek yaa teral yàlla nu yeesa yeesa yees te am ngërëm lu yeesa yees ak may gi yeesa yees nu bég wu nu bégal te am na nuy sant bu wér tey def lu ñuy sant bu wér ñi dinu sant nag bu wér te dinu dollee ka baril man sant naa yàlla bu wér te sant yoon na nit bu wér sant sama sëriñ bu wér ngir sama xol bi ñu seral may nañ may mucc njariñ ba noppi def ma ab sëriñ buy maye mucc ak njariñ li ñu ma may sedd na xol cant ak ngërëm jot na ci man sëkk rafet ma it ci man dëgg te jekk na ci man maa ngee ki may jëpp ak fal li ñu ma may jomb na ma li ñu ma may ëpp na ma man gépp cant war na ma fasoona maa sant asal fasoona maa sante lu rëy yal na nu am lu rëy rëy lu gën a rëy lépp lu rëy ba fab ko yot ban ba mu jël wàcc na ngir bay naw sasam bayal ku nekk aw sasam yal na nu sax ci ndigalam tey sant saw ak a jubal yal na nu dimbalee ti nag ndimbal lu dul yam fenn nag te may nu fan gu gudd nag wa ànd ak topp ndigal yal na nu yor yor bu rafet te may nu yar bu mat rafet ak dundu guy wéy gu rafet bu yàgg yàgg gu ñu ful te ëllëg lu mën a xew te du mbég ak jàmm ko yiw yal na nu mooy mooy ñu nu xew muy mucc daalaka musal sëriñ bi yal na nuy dégal fawaka may lu nuy dégal yal nay may it ku nuy dégal lu koy sawarloo ka bégal kunuy texee lu gënul yal na mu ragal faw te ko ci am te du jeexal waaw alhamdulilah noonu koy ñaan nanu xëcc ba yóbbu nu ñoo ñee jëkk war a ànd ak nu tabu ca ñoom ànd ak ñoom jëm jëm mu jëme nu fu ñu fam lañ jëme loolu rek laay ñaan jërëjëf